مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك تاي نيغي بير سي غامو بير بو ماك بيغا خام نييب خام نانكو ني نيوون ديف ديليغاسيون غير جي ار سي نينكو باخو ديف سي فيب فو خام غامو خيو نافا ولا ماغال خيو فا كوم يالا ديفنا Euh, suñ xalifa yi fi nekk yëpp yàlla ñu fi yàgg te wér sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Ndiassane ñoom ñëpp dañoo woote bennoo pour tarixa an nekk benn ci moment boo xam ne défi yi bari na coow yi bari na euh, xiiroo ngaay rawat na ci biir réew mi Sénégal moo tax wax dëgg yàlla ñu ngi ko baaxoo def chaque année ñu def délégation ñëw ngir yeesalaat bu mbokk gi xam moom lañ bokk tarixa yi ni ko suñ tubaaru waxee woon na bépp wér du waaye mën a jàpp boo ci sel ci yàlla la jëmee si daaj malisam loolu ne tarixa yëpp ci yàlla la ñu woomat jàmm mi jëme ko ci yàlla suma subhaana kon réew mi Sénégal gisuma fu ñu saytaane mën a jaar saa su dama koy wax ndax saytaane fi ñu mën a jaar nit ñi mooy ñëw fekk mag ñi kenn ku ne di wax loo xam ne xëy na dëppwut ak la sa morom wax waaye alhamdulilahi rabbil yàlla fex na sëñ Tuubaa la mu bind di ko woote ci lislaam loolu Sidi Hadj Malick si bind sëñ sëñ sëñ Pir mii nga xam ne moom lañ ñëw ci péncam tey di ko màggal euh, loolu la bind ci ay téeram sëñ bu ko na jaasaan loolu mi sëñ laayin loolu kon moo tax xëy na taalibe yi mën nañu xër des fois kenn ku ne xëcc sab sëriñ waaye bu ñu delluwaatee ci téere yi da ngay fekk ne ñoom ñëpp dañuy woote ànd nekk benn moo tax alhamdulilahi rabbil alamin eh, bi nga xam ne fan yi passé gis ngeen eh, Tiwaawoon bu président de la république ñëwee wax ne nañ fexe ba islam confrérie bi nekk bi réew mi Sénégal ñu gën koo téye ndax gis nañu Sénégal li leen may jàmm may leen tawféex mooy l'islam turq soufiyé yi ñuy dund mooy l'islam soufisme ndax boo demee réew yi naar yi fépp a tas waaye Sénégal alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mi ngi may lu mel noonu moo tax ñu def délégation ñëw fekk suñu mbokk yi baax nag sëñ Fallou Mbacké mii mooy imam bu Touba di jir grand Mosquée ci walu naafile weeru koor alcorane ju neex fekk fi tamit seigne Cheikh barlat fekk fi waté won fekk fi wax deug yalla kon nak am nañ mbégte ak kontaante seigne Mansour gis ngeen ko dañ koy ñaanal yalla nako ko yàlla guddal fan wéeru cëram wax ju rafet la wax bi mu waxee par li war ne ñoom day woote ben da paré né seigne Cheikh bar yaay ñaan seigne Cheikh bar ne ko yaay mëna ko dédé yow yaay ñaan kon l'islam li moy l'islam Sénégal l'islam Sénégal li nga xam moy l'islam paix et tolérance li nga xam moy l'islam bo xam dafa digg doomu donc kon ñi ngi wo taalibe yépp wo julli ñëpp nañ gëna a tënku ci ginnaw seen xalifa généraux yi lepp lo xamne mom lañu gis nañ ne fa lañ bëgg jëmal askan ñu and ci ak ñom japp nañ loolu buñ ko defé yalla mëna ñu dimbali gis ngeen fan yi rek affaire serigne daara bi xewon euh, serigne muntaha bi ci yëkkatee kàddum deug la japp nañ ko yobbu justice waye da nga xamne am kilifa rek mu am solo ndax xaadim gi dafa amoon kilifa donte day jangal waye amna na kilifteef euh, muy serigne muntaha motax serigne muntaha Muntaxa bi mu gis ngeen ne mbiri bu fekkoon ne sëñ boo xucc woon moom naa gën a euh, jéggi dayoo da ngay sëñ Muntaxa bi mu joxee bi ñu justice wax deug yalla ñu ngi leen sant tamit justice Sénégal ndax am nañ ci ben tolérance loolu lepp limi wone moy pouvoir temporel spirituel Sénégal buñ ñu rek réew mi da dana dox jëm ci kanam té réew yu bari bari xeyna lool loolu ëmb fa dañuy xiiroo ngay way gis nañu Sénégal alhamdulilah rabbil alamin yalla ngi dimbali ba justice bi comprendre na attitude sénégalais fiñ tollu ci alcorane karim bam tax ñu relation waaj bayiko ko dañuy ñaan rek lañu tek naan suus rek yépp ñu raxas ko ba mu set wicc rek xamne mom yar moko taxonu juk waye jug waaye leneen takkoon a jug kon dal li mooy kàddu yi nga xamne ayas do nako yëkëti di sant ñëpp di gën a ya salli wa sallim daiman abadan ala habibi بك خير الخلق كل صل وسلم دائما أبدا على